maaleykum wa rahmatullah waa Mouhalim info numéro un seen mbokk xaadim Thiam ci kàddu gi ngir tënkal leen di fi ci xibaar ci ngoon gi ci kàllaamay Kocc Barma ñi ci ànd ak seen sponsor officiel yu am solo yooyu di café Touba Bousra ak Touba Xayra cosmétique dañu koy doore ak kii nga xamante ni moom moo di Abdoulatif Cissé di sëriñub daara boobee nga xamante ni daal dafa faatoon ab taalibeem ci le 15 wala bokk le 16 février 2020 bi ñu weesu dañu nag tey jii lañ ba kat yoon daan na ko juróomi at yu mu a tëdd ci kaso bi li ko ko yóbbee nag moom Abdou Latif Cissé moom yi le 16 février 2020 ba le passé muy daaw benn taalibeem daal la jàppoon duma ko du muy méttee métti ndax taalibe boobee kat dafa mokkalu te bindam gannaaw bi nag taalibe bi daal jële fa ay ak tawat tëdd ñaari fan yàlla yoo xamante ni da ko feebar euh, ba jaaree fa ñàkk bakkanam gannaaw bi itam ay mbokkam daal di porter plainte ba ñu teg loxo sëriñ boobee nga xam ne moo ba yóbbu ko ca prison Louga boobee te ji nag lañ ko doon àtte daan ko juróomi at yu mu tëdd ci kaso bi ndax kat moom lañ ko wax daal ne ko dañ ne ko daal yaa dóor nit dóor yi métti métti ko indil ay gaañu gaañu te nga def ko ci sa tayeef bakkan ba gaañu gaañu yooyu kat yóbbe ko mu jaare fa ñàkk bakkanam